président Bassirou Diomaye fay faloo ba léegi Y'en dafa ne réew mi tolloon na ci dayoo boo xam ne defar ko du ñaari fan du ñetti fan te nguur gi ñu fal bees faw ñu may leen temps pour xam fa ñu jëm faw ñu may leen temps xool ban direction la ñuy jël pour jëmale fa réew mi surtout que premier ministre defagul sax déclaration de déclaration de politique générale pour sax ñu mun a am une visibilité wala une lisibilité ca fañ nam ma yóbbu réew mi loolu la waraloon ñu ne dañ leen di bàyyi ñu doxal ñu xool ñu observer ci biir doxal ak xool boobu noonu régime bi mun nañ leen baal ñu def erreur ci benn priorité économique mun nañ leen baal ñu def benn erreur politique mun nañ leen baal ñu jël leneen def ko ne mooy priorité mais munuñ leen baal mbirum justice munuñ leen baal mbirum politico judiciaire munul nekk c'est impossible c'est impossible on doit rendre service à ce régime tous les Sénégalais parce que ñun ñëpp dañoo cotiser d'une manière ou d'une autre pour que ces gens-là accèdent au pouvoir ñii dañoo ñàkk seen bakkan ñii dañ ci jëlee laago ñii dañ cee tëdd kaso ay at kon loolu noonu mënul nax saay pour ñu delluwaat ci situation boobu noonu di ko dundaat dañu ne délit d'opinion liberté d'expression du wax lu la neex ak nu la neexee ak fu mu la neexee du wax yëkkati ay kàddu ñaawal ko ci ay doomu aadama ce qui se passe aujourd'hui ci réseaux sociaux yi yàq der waxante lu bon ndàngama ndàngam loolu bokkul ci liberté d'expression te loolu bu amee yoon war na ci àddu loolu nangu nañ ko d'accord nañ ko mais dañu ne régime bii donte dinañ wax ne c'est les mêmes juges qui sont là c'est la même loi qui est là c'est la même police qui est là mais ba tey système judiciaire bi fi nekkoon moo fi nekk chancellerie bi moo fi nekk ba tey procureur répond aux ordres du ministre de la ministre de la justice ministre de la justice du gouvernement procureur jox ordre de police mais loolu mënuñ ko setaan c'est impossible mënul nekk mënul nekk on a même vu le ministre de l'intérieur génn di toog di défendre li ñuy woowee la loi Ousmane Ngom qui interdit systématiquement aux Sénégalais de marché lu ko dalee poste Médina jëm Cap Manuel rawatina mu dolli ci ne moom bu sañoon sax kenn dootul manifester place de l'Obélisque place de la nation mais loolu fan la ko teg fan la ko teg y a même pas neuf mois on faisait une marche pour la libération de Aliou Sané et de Ousmane Sonko ñu demandé à le faire à la place de la nation Macky nañu pour les travaux du BRT mun leen am bërëb bi ñun ñëpp ñun ñëpp ñu génn ne lii du yoon ñu kaas ko mais depuis quand ministre de l'intérieur moo ñu tànnal fan la ñuy marché ak fan la ñu war a taxaw ak nan lañ koy kaase pourquoi ñuy interdire à l'opposition de marcher pourquoi ñuy nëbb le dossier bi nga xamante ne conseil constitutionnel génne na ko pour ces élections là ba heure bu mu leen neex ñu publier ko c'est fausser c'est fausser le jeu et ils en ont subi les conséquences ñoom donc on peut pas permettre à ce régime de rentrer dans ces dérives là non non non non non non non non non non nous ne l'accepterons pas on l'a pas accepté sous Wade on l'a pas accepté sous Macky Sall c'est pas aujourd'hui qu'on va l'accepter sénégalais yëpp seen mbébét seen yéene seen bëgg-bëgg mooy régime bi réussir suñu réussir man mooy sama noflaay damay tëdd nelaw juróom-ñeenti weer a ngi nii ma nekk ci sama jàmm bu pensé que li ñuy def daf ñu neex bu pensé que dañ am jot rek di génn di wax bugguñ ko tal nañ leneen mais l'heure est grave l'heure est grave te et li gën a graaw dama ne même si c'est la même justice qui la là même si c'est le même système qui est waruñu woon a nangu ñuy oo ay nit sur la base dafa am lu ñuy wax parce que nag donte liberté d'expression du wax lu la neex ak nu la neexee ak fu la neexee te ko ci ku nekk mais boo jàppee nit ci ay kàddu yu ñu ko jàppee mais bul ko jaaba njalaloo retour de parquet woo ko enquête ko su indee preuve nga bàyyi ko su indul preuve nga bu janoog procureur procureur yóbbu ko flagrant délit parce que li mu def dafa leer c'est un flagrant délit kooku kenn war ci yóbbu kenn instruction beneen bi mooy un homme politique engagé dans les prochaines élections législatives à quelques semaine de la campagne ñu koy woo ci ay délit d'opinion ay diffusion de fausses nouvelles mais diffusion de fausses nouvelles délit d'opinion wala wax sa xalaat Depuis quand contredire les chiffres d'un Premier ministre est un délit au Sénégal Depuis quand Qu'on le dise, depuis quand Contredire les chiffres d'un Premier ministre. Même le Premier ministre lui-même, qui dit sa, sa, conférence, il a dit J'ai toujours contredit les chiffres de Macky Après, aujourd'hui, nous avons parce qu'il contredire les chiffres. Mais c'est une opinion d'amour là. Il faut que notre démocratie souffle. Il faut qu'il y ait une opposition il faut qu'il y ait une presse libre il faut qu'il y ait une société civile il faut que les gens wax seen xalaat mais nañ ko wax ci ni mu war a nekkee nañ ko wax ci anam bi mu war a nekkee que les gens respectent les gens ça c'est un appel que je lance solennellement à tous les Sénégalais respectons-nous nañu bàyyante yàq der nañu bàyyante waxante bu ñaaw nañu bàyyante uñante yenn suture yi tey waxante dëgg nañuy waxante dëgg te bàyyi caaxaan bi que la presse prenne ses yéen ñëpp xam ngeen fii ban presse ak ban presse moo fi nekkul di def liggéey bu baax il faut faire les assises de la